asalaamualeykum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu bëgg tuuti leeral ci dégg nga liste bi balaa ñuy jàll ci xibaar yi bitim réew yi ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé publié ab liste tey bu toll ci ñaar fukki gaynde ak juróom-ñeent waaye nag mu jur coow lu bari ndax kat ñu bari nee nañu am na joueurs yi ñu woo yoo xamante ne amuñu fi place waruñu leen woon woo am ñu ne am na joueurs yu ñu bàyyi ca gannaaw yoo xam ne waroon nañ ci bokk ku ci mel ne Habib Diallo ñu bari ngi coow ñu ne la lan moo tax Aliou Cissé war a bàyyi Habib Diallo woowu ko te jamono bi man la ñuy wax ne suñu attaquant yi bokk nañ ci gën a xarañ te moom day joué ndax woo nañu Bamba te joué wul nee nañu woo nañ Keita Baldé bi kat tàmbali joué yàggul bi mu changé club yàggul te moom joué sax lu mat minutes ak club am woo nañu ko ni Bala Touré joué wul mu ngi joué te nekk na champion d' comme ni ko Cissé di waxee ba pare woowu ko lan moo tax loolu. léegi nag li xew mooy Habib Diallo dafa am blessure ci pooj bi loolu mooy li nga xam ne ñun liir nañ ko ci benn page ñu gis ne xëy na loolu bokk na ci li nga xam ne bo tax na Cissé woowu ko leerul ñu ndax loolu dernier match avant ñuy sóobu ci li nga xamante ni mooy dégg nga regroupement yooyu le amaana lii bokk na ci li gën a tax kon si woo ko dañu ko njorta képp nag waaye daal comme nee nañu dafa am gaañu gaañu ci poj bi jàpp nañu ne xëy na loolu bokk tax Cissé woowu ko ndax moom am na xibaar ci joueurs yi nga xam ne ñoom lay jokkool ak ñi mu bëgg a woo Famara Diédhiou ñu bëree ngi laajte lan moo tax woowuñu ko dafa jógee ci blessure commencé na entraîner mais nekkagul 100 pour cent Famara Diédhiou boo xoolee clubam Alanya Sport commencé gul football voilà kon moom nekkagul 100 pour cent dafa jóge ci blessure moo tax kooku tam jàppandiwul woon ngir mu ñëw Saliou Cissé yaakaar naa ay mbiram leer na xam ngeen ne Cissé wax na ko tey amul club il faut mu bàyyi ko mu lijjanti dégg nga maam situation boobu ba génn ci su ko defee mu koy soog a woo te lenn dinaa leen ko wax Saliou Cissé bu dee am na club ci semaine yi di ñëw wala fan yii le ba bu ñu demee ca li nga xamante ni mooy euh, euh, novembre balaa boobu bu fekkee muy joué du wane lu leer ak clubam keneen mooy toog di xaar mais Saliou Cissé moom day dem. Cissé da koy woo Saliou Ciss bu amul club di jouer Cissé dina ko woo keneen la ñuy lañ fiy bàyyi mais Saliou Ciss day dem loolu dafa leer moo tax liste bi ak bay génn ci novembre na ñëpp xam ne du doon benn joueurs yi ñu woo nii yëpp am na ci ñoo xam ne duñu dem coupe du dañ leen woo pour xool ci ñoom tester leen xool ba xam ana lañ wal lan lañ war a mën a joxe il faut ñu tester Ismaël Jacob yàgg nañu ko laaj il faut ñu oo Noah Fadiga ku mel Noah Fadiga wala Nicolas yàgg nañ leen di laaj ko defee ñu dal di xool ku nekk ci ñoom lan la war a mën a joxe Ismaël Sarr war na am concurrent Krépin jaar dafa jóge ci blessure Coupe d'Afrique bi am na ay jafe-jafe yu ñu fa dund ci wàllum attaque ba Bouna Sarr moo doon yéeg di jouer ailier loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne il faut ñu jéem a càmbar dégg euh, ay joueurs yoo xamante ni balaa ñuy àgg ci dégg nga maam liste bu mujj ba fekk moo xam lan la war a def léegi nag absence yi kon loolu lañ ci bëggoon indi comme leeral Abdoulaye Seck comme ni ko ñu bëri waxee jàpp nañu ne moom contrat am ak équipe nationale moom jeex na ndax kat xam ngeen ne Cissé day faral di wax ne maanaam am na championnat yoo xam ne moom du fa xool yenn joueur di leen woo yéen a ngi gis Pape Aliou Ndiaye élément bu am solo la woon mais bi mu demee ci réwi naar yi ci la ko Cissé gëjoon woo jamono yi sax dellusiwaat na Turquie waaye taxul xam ngeen ne équipe nationale bi génn fi yomb na mais duggaat yombul Alfred Ndiaye depuis mu jógee fii dem Qatar ba léegi woowaatuñu ko donte ne dellusiwaat na Espagne mais xam ngeen ne dugg bi du yombee noonu voilà ak keneen ak keneen kon Abdoulaye Seck bi nga xam ne moom daanaka dañu ko doon woo ko teg ba bu fi dem jógee Belgique dem Israël loolu mooy leer na ne moom xañ na moom dootul ñëw Mustafa Nam sax kaw mustafa Nam ki di Cissé mu ngi yar xel woo way Mustafa laaj nañ ko ko tay mustafa Nam Chypre la dem Chypre championnat bo xamanteni xej na nekul championnat bo xam dafa compétitif comme niko di faral di waxé légui nak mom néna dina am waxtan bu mu séq ak mom bu ñëwé ci groupe yi su boba après lañuy xol après lay ñëw ci gannaaw ndax dina continuer diko wo am déet way néna na faw mu woko ndax champion d'afrique la ta dafa nekkon élément bu am solo néna ci kan bi ñu weesu voilà Keita Baldé xam ngeen ne mom amul temps de jeu bi mu am changer club yagul déjà fa mu nekk tambal nañ koy critiquer ndax dal mom fa forme physique am daf leen jaaxal ñi xam ne supporter Spartak Moscou yi ñoom Keita Baldé li muy wane doyut leen 40 minutes sax joué gu ko voilà ak club boobu di Spartak Moscou ndax jox guñ ko temps bu doy ndax li ñu gis ci moom xëy na doyagu leen waaye ñooñu ñëpp il faut Cissé woo leen il faut mu woo Keita Baldé joué ko xool ba xam kii ndax mu ngi liggéey fa nekk am déet il faut mu na il faut mu woo Nampalys Mendy il faut mu woo Bamba Dieng ndax ñooñu ay jour lañ yoo xamante ni foog nga ñëw woo leen ñu ñëw nga footballoo leen xam ndax ñoom fañ na ñu ngay liggéey wala déet ndax xëy na jour mën nañ ko bañ a jox temps de jeu te mu ngi entraîné di rey boppam pour pour waajal di coupe du bi léegi nag loolu jour bi bu fekkente ne woowuloo ko testé ko loolu doo ko xam moo tax dafay jaadu ngir ñu woow ñooñu dal di leen testé yaakaar naa loolu lañ ci bëggoon indi comme leeral voilà bu dee am na leneen mën ngeen ñëw ci question yi suuf commentaire yi boo ko jaree ñun dinañ ci dellusiwaat comme